bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibaadihi allasina stafa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bismillahi fi al aqdar yallahu safi al baqaa bihi li fika yallah alhamdulillahi wa salla abada ala alladhi bihi lana al huda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi dhawi nawadil wali ñu ngi nuyu mboolem juddu ci àdduna bépp di leen ziar bu baax di ci nuyu bekk ziar bi saaxibul fadila cheikh mahamadul muntaxa ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool banaa li mu fas yéenee liggéeyal maam ju baax ja yàlla may ko wér gi ak kattan gi naal yi mu amit rawatina muy jàngkaay bu kawe boobu yàlla may ko mu àggale ko ba tàmbali yeneen di nuyu mboolem ci réew mi yëpp di leen siyaare bu baax di leen ndokkeel ci weeru wu màgg wi nga xam ne moom lañuy ñuy waaj a dugg muy weeru koor di ñaanal jullit yépp ci àdduna bi ak nit ñëpp yàlla wàcc fi xéewal ak jàmm ak wér ci barkeb Cheikhul Khadim te yàlla musal ñu ci balaa yi ak ci mboolem ay àdduna bi ni ko Cheikhul Khadim doon ñaane rek wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayyib ukulaha wa shurbaha dal na ko yàlla dogal te wàcce ko ci àdduna bi yëpp di nuyu mbo mboolem askan wi ñuy seetaan jaarale ko ci chaîne bii di Fathul Mannan TV di rafetlu bu baax dalal gi ngeen ñu euh, dalal di rafetlu liggéey yi ngeen di liggéey yëpp di ñaan yàlla mu nangu ko euh, mu mel ne nag xew jamono yi nga xam ne moom moo am muy jàngoro ji nga xam ne moom lañ naan coronavirus wala ñaan ko Covid 19 ndax. boo ko tënkee rek mooy coronavirus disease bi nga xam ne 19 la génn muy année 2019 di jàngoro jot moo ngi bawoo ci réew mu ñaan Chine ci dëkk bu ñaan Wuhan ci boori décembre 2019 te léegi mu tasaaroo ci àdduna bépp ba jege ñaari millions doomu aadama am ko mu jàngoro joo xam ne ju doy waar la te mën a faagaagal doomu aadama donte yàlla def na ci tawféex ba ñi ñi ciy wéer ñoo ëpp foofu ñi muy ñi muy lor di ñaan yàlla mu jële ko fi ci jàmm ndax mbalaa moom bu wàccee saa su neexee yàlla rek la ko fi jëlee rawatina jumeen nii nga xam ne tubaab yi ci jëmam lott nañ ci xam dëgg-dëgg lan moo ko waral ak fu mu jugee waaye it lan moo koy saafara rawatina nag nan la ñuy fexe ba mucc ci loolu day wane ne rek balaa la musiba la boo xam ne suñu borom moo ko wàccee di ñaan mu jëlee ko fi bu baax a jàngoro ji loo xam ne nag ju doy waar a doy waar la ndax dafa gaaw a wàllaate lool ci ni muy wàllaatee euh, ñi ko xam wala niñ ko xamee mooy mën naa jaare ci sëqët ci tissu li wala ci laal loo xamante ni ko am jàngoro ji laal na ko looloo tax ba wax nañ ne kum dal mën ngaa wàll lum néew néew ñetti nit looloo tax mu doy lool réew mum dugg rek balaa muy yàgg daanaka lu ëpp ci ma dañ koy am ndax bi mu tàmbalee Chine États-Unis jëluñ ko woon au sérieux tubaab yi tamit noonu bañ nañ ko ba Donald Trump jàngoroy Chine ji la ko daan wax waaye léegi dem na ba moom mooy réew mi nga xam ne ñoo ëppale lu ko am lu ëpp deux cent quarante mille personnes am nañ ko foofu te ba muy door daanaka feebaru Chine bi rek lañ ko doon wax nga xam ne organisation mondiale de la euh, de la santé yàgg nañoo alerté adduna bi waaye tubaab yu bari jàppe ko woon ne mbir mi kat lu am njariñ la ba bi fi duggee gis nañ faagaagal li nga xam ne moom la fa def ba démb rek wala barki démb Donald Trump jël na ndogal dakkal ndimbal li nga xam ne États-Unis daan na ko def ci organisation mondiale de la santé nga xam ne cinq cent milliards de dollars la daan doon par an ndax dane waa organisation bi dañoo faral Chine dañuy jàppale Chine mi nga xam ne quarante milliards de dollars rek lay joxe par année mu indi coow lu rëy nga xam ne mën naa ne xaw naa jaxase àdduna bi ba tey Chine tubaab bi ñu ngi koy tuumaal naan ko chiffres yi nga xam ne joxe na ko ne moom la jàngoro ji rey ci Chine nee nañ ëpp na loolu ndax boo ko xoolee ñoom lim rey ci ñoom daa bari euh, ba tax na sax démb rek Chine ci 17 avril bi wala ci 16 avril. indiwaat na yeneen chiffre yoo xam ne yokkaat na lu jege deux mille personnes wala mille et quelques personnes ci ñi faatu loolu jur na wax ju bëree baree bari am na Emmanuel Macron ak ñu bari wax na ñu Chine la fa xew ñun xamuñ ko ba ñu koy tuumaal ne ni mu géré jàngoro ji des na waaye nombre bi mu wax ne tamit moo faatu loolu euh, des na yooyu yëpp di wane ne boo ko boolee jàngoro ji kon mi ngi lëmbee adduna bi conséquences yi mu am bari na torop ci wàllu dundinu askan wi. ci wàllum njàngum askan yi rawatina ci wàllum koom mi ndax boo xoolee àdduna bi dara dematul dara dikkatul euh, loolu ci conséquences yu négatif yi la donte am na ñaa am na ay conséquences yu ci wàllum euh, nature bi mooy keew meeg lu ñuy ndax dañ ne bu avion naawul oto dawul jën yi kenn nëppul ci géej gi jën yi danañ nooyi rabi àll yi kenn du sonal air bi tamit ay liñ naan tooke ji daan am ba tax taw yu bari du am loolu itam nee nañ dana wàññeeku foofu rek moom la xaw a nekkee lu kii waaye daal de manière général moom boo ko xoolee conséquences yi ci àdduna bi bari na ndax élection yu bari dàq nañ ko njàng yu bari dakkal nañ ko euh, mboolem activité sportive yi daanam ak culturelle yëpp tamit dakkal nañ ko avion naawatul daanaka lu dul avion boo xam ne day jëli marchandise ak yooyu kon loolu boo xoolee léegi lépp day wane jàngoro ji am doole goo xam ne am na ko. Euh, ba tax na sax moo jur lu ñuy wax naan nouvel ordre mondial après dana am te muy ab baat bopp bari na ay ay ay werante yu ci am waaye li ñu jublu dëgg rek ci contexte bii mooy bu ñu noppee adduna bi moom dana amaat aw doxalin wu bees muy lan européens yi ak américains yi ak Chine ak Afrique danañ am nu ñu tëggaatee àdduna bi boo xoolee nii nii rek Chine wax nañ ne daanaka moo ci xaw a gañalu baree baree bari lu tax ndax jaay na ay masque yu bari ay centaine de milliards de dollars jaay ay produits yu bari loolu day ware ne kon Chine xaw naa dominer foofu mën naa ne moo ci génn xaw cee am am ndam adduna bi Amérique moo xawoon a jiite affaire yi mais léegi daanaka tourné na ci Chine lu tax ndax Chine mi ngi dimbale ay nit di jaay ay marchandises quand même ab koomam gën a yokk waaye taxawaayam ci wàllu diplomatie aussi gën naa yokk kon loolu Chine moom moo profité ci jàngoro ji donte tàmbalee bi jàngaro ji doon soog a tàmbali am na ci àdduna bi ñu doon wax naan eh, jàngoro ji américains yi ñoo ko defar yóbbu ko Chine donte nag léegi changé na ba américain yi ñu ngi naan comme ci eh, Wuhan la jóge kon seen laboratoire yooyu ci dëkk yooyu demu Mike Pompeo mu nga xam ne mooy secrétaire d'État Amérique mi na dana ci ubbi ay enquête bu gën a xóotal pour war loolu ci wàllum diplomatie ak ci wàllum Euh, politique adduna bi dana ci changé loolu mooy nouvel ordre mondial bi ñu doon wax te président Macky Sall discours am bi nga xam ne defoon na ko le 3 avril mu ci doon wax naan dafa war a am ñu jël nit yóbbu ko ci xolub euh, xolub dem beeg dikki beeg xolub doxalinu adduna bi maanaam pour moom nit dañ koo bàyyi ginnaaw jël am koom aj ko ci kaw mu ne nag loolu daa war a changé ba nga xamante nit ki lañ war a jox priorité loolu sax moo tax mu lancé appel bu mag wax ne pays africains yi seen bor yi nga xam ne amee nañ ko pays euh, ñi leen ñu lebal ñu ñu baal leen ko donte FMI génnee na ay réew yoo xam ne da leen di baal seen ay bor waaye réew yooyu mooy réew yi nga xam ne ñoo gën a néew doole ci Sénégal bokkul ci réew yooyu loolu appel boobu mu def Emmanuel Macron ak Pape bi nga xam ne moo jiite jàngu bi ànd na ci. waaye malheureusement daa mel ne ñoom kii ñu ko doon nga xam ne nouvel ordre mondial ba tey dana am sur le plan politique et sur le plan économique aussi kon daal loolu rek mooy situation bi nga xam ne am na ci àdduna bi de manière générale muy am na jàngoro ju ñëw tudd ni muy Covid 19 bawoo Chine bi mu ñëwee nag law ci àdduna bi ba nga xam ne ay millions ngi doomu aadama ñoo ko am ñi mu faatit bari na lool rawatina ñi nga xam ne dañoo amoon ay jàngoro di ñaan yàlla mu musal ñu ci loolu mooy première. Euh, parti bi ubbi waxtaan wi ba mu ñëwee nag changé na doxalinu àdduna bi ci wàllum politique changé na ko ba tax léegi daanaka Chine moo xaw a dominé àdduna bi ci yenn yi donte Amérique nanguwu ko ci wàllum économie nag moom moom ci la rawate mooy conséquences yi nga xam ne jur nañ ko danañ ci ñëw ci kanam euh, léegi nag ma ñëw ci bi nga xam ne jàngoro ji am na lan la nar a jural àdduna bi. mooy nouvel ordre mondial bi ma doon wax surtout ci wàllu économie bi jàngoro ji ñëwee laal na fépp ci àdduna bi ndax boo xoolee réew yi ëpp doole nga xam ne euh, seenim koom-koom ci wàllum pétrole la daan am mooy li ñaan OPEC mooy réew yi nga xam ne dañuy dañuy dañuy produire petrole ad duwal al muntija lil pétrole muy OPEC ñooñu dañoo gis ne liñ daan jaay ci pétrole daa wàññeeku lool ba tax sax baril petrol bi daa di wàññeeku ba nga xam ne daanaka jaratul lu bari ci àdduna bi loolu la njëkk a jur ci wàllum pétrole nga xam ne mën nañu mooy secteur bi ëpp doole biñ jugee ci loolu mu laal liñ naan euh, transport bi rawatina transport yi nga xam ne réew yu bari ñoom dañ ciy sukkaniku muy aéroport yu mag yëpp dañ koo tëj loolu yi indi jafe-jafe yu mag a mag a mag a mag a mag ba xëy na bu Covid bi jàllee. conséquences ci dañ koy gën a mën a xayma ci wàllum euh, hôtellerie aussi laal na ci muy tourisme tourisme surtout fii ci Sénégal ak Afrique ak yeneen réew yëpp sax wax nañ ne mooy bokk na ci li gën a am lu muy doole ju muy dugal ci économie bu dee Sénégal mooy deuxième euh, volet boo xam ne mooy dugal activité buy dugal économie loolu yi dafa dafa yàq bu baax a baax a baax ndax bu avion naawatul kenn dematul kenn dikkatul wàllum tourisme secteur la boo xam ne bu daan jur am koom la dafa yëf yi da ko laal bu baax a baax bu dee ci wàllu sport tamit nga xam ne industrie bu mag la muy du jurum koom laal na ko ndax amatul benn activité sportive yoo xamante ni bu mag la buy dox aj nañ si jeux olympiques yi ligue des champions yi coupe d'Europe bi ak yeneen ak yeneen ba ci jongante yi nga xam ne moo nekkoon euh, qualification coupe d'Afrique yi kon loolu jur na ko ci wàllum koom moo xam ne yàqu na ci wàllum ci wàllum sport bu dee ci nag loolu ci àdduna bi la bu dee ci Sénégal nag ba tey ci àdduna bi sax jur na wàllum chômage bu méttee méttee métti muy entreprise yu bari liggéeyatuñu seeni emploi dañoo toog seen kër ndax confinement yeeg yooyu loolu wax nañ ne Amérique tey rek lu mat vingt deux millions yoo xamante ne dem nañ au chômage mooy ñàkk nañ seeni liggéey te loolu nag lim jur mooy ci ci Europe ak ci àdduna bi sax wax nañ ne am na réew yoo xamante ne nit ña tëj giñ leen tëj te amatuñu lu ñu dundee dafa tax ñu commencé am jafe-jafey xel kon loolu yi daal ci économie euh, Covid 19 jur na ko ci ay ci ay conséquences loolu nag tax na ñu war a xam ne kon feebar la bu sérieux bu am ci àdduna bi bu laaj ak ak taxaw ak ceytu bu baax waaye yàlla dogalagut mu am li koy faj dëgg-dëgg wala loo xam ne mën na cee musal nit loolu yi moo tax kon. nit ñi di ñaax nit ñi ak di sensibiliser rek ak di yokk ñaan yi aussi euh, bu dee ci Sénégal ci wàllu économie li ci jur mooy bi mu amee dañoo dakkal wàllum njàng mi mi ngi fi dugg le 2 mars 2020 boobaak léegi am na ay cas yu baree baree bari yoo xam ne day yokk am na tamit ñettuñ ci ñàkk seen bakkan ñu leen ñaanal yàlla xaare leen àjjana te yërëm leen am na ñu ci wér loolu xëy na ñëw ci modelu Euh, Sénégal muy nan la Sénégal fexe ba jàngoro ji xëy na lawu fi loolu am nañ ciy gis-gis nañ ci ñëw waaye ci tomb bi ñu nekk rek mooy conséquence yi nga xam ne jur na ko ci wàllu économie ginnaaw bi ñu waxee feebar bi fu mu jugee mooy lan Sénégal gii daf ko laal bu baax a baax a baax ba tax na président Macky Sall génnee junniy milliards ngir plan de riposte contre le Covid 19. junniy milliards yooyu financement yi xam nañ fi muy jugee yenn ñi ci euh, way jàppale lu mel ne FMI nga xam ne barki Euh, li ñu naan facilitation des dettes am na ci muy mu yombal ba Sénégal am bor jox ko lu mat deux cent et quelques milliards loolu tamit dañ koy fay banque mondiale noonu banque africaine de développement xaalis bi foofu lay jóge ci bailleur de fonds yi ñi nga xam dañuy lebal te leb bi xëy na intérêt du ci am te da ko mën a fay fii fukki at kon xaalis bi dañ koy dañ koy leb loolu mat naa bàyyi xel yeneen ni nag quinze milliards yi wala yenn milliards y nit ñi ñoom ñoo ko joxe muy li ci Cheikh Mamadou Mountakha deux cent millions yi ak ñeneen ak ñeneen ji way defal yàlla yi nga xam ne ñu ngi def loolu yi fi muy jëm mooy lii ci askan wi la jëm lii ci entreprise yi lay dimbale rawatina baal leen seen ay bor wàllu wàllum impôt wala boog mu yeexal ko ndax amatuñu liggéey bu bari te dañuy fay seen salarié soixante dix pour cent la mag Sall laaj nañ ko fay seen ñi leen ñu liggéeyal donte liggéeyuñ ndax ñu mën leen a jàppale ci mbir laal nag wàllu tourisme ñu war cee def quinze milliards. ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne day wane na nag laal na jafe-jafe réew mi wax nañ ne sax chiffres yi nga xam ne yenn statistiques yi ñu ngi koy def ci wàllu économie ñu ne Afrique bu bu noppee dana ko laal ci wàllum koom loo xam ne ay junniy junniy milliards lay doon loolu nag ñu ngi ñaan yàlla mu woyefal ko loolu sax moo taxoon ba xëy na président yenn yi di sàkk ngir ñu baal leen seen bor gi kon euh, ku ko xool ci secteur yëpp mën nga koo gis. rawatina am ak ak ak état d'urgence bi état d'urgence mooy jamono bu buñ ci tollee dañuy may njiitu réew mi mu wàññi euh, sañ-sañ ak ak àq yelleefu doomu aadama yi moom mu yokk ay sañ ba yenn décision yi bu koy jël du jaar ci pouvoir législatif assemblée duñ ko voté moom mooy jël rek def li ñaan ordonnance bu dee yenn marché yi tamit mën naa bañ a jaar ci appel d'offre wala xëy na ARMP du ci wax dara nga xam ne lépp daal day gaaw ba pare mu limiter déplacement yi nit ñi yeneen kii loolu nag conséquences yi muy jur mooy nit ñi buñ dematul dikkatul aéroport yi ñu tëj ko Sénégal fi mu daan sukkandiku ci wàllu économie lépp day daal di wàññeeku bu baax looloo tax ba foo laal rek mi ngi metti ndax nit ñi dematuñ dikkatuñ